qui perd le pouvoir yéen depuis trois semaines on étouffe euh, sous le poids des de des rapports euh, de l'OFNAC de la de la Cour des des comptes de l'inspection générale d'État euh, seen ñu ñu ñu jël seen gestion teg ko ci marché euh, naan jël nañ milliards yi séddoo nañu suuf bi euh, salfaañi nañu lii ngeen noppi mel na yéen amu leen loo leen wax mais ñun lan la ñuy wax. lan ngeen dul wax. tey jii bu fekkee ne vous êtes no ah, banc ah. des accusés. non non on n'est pas au banc des accusés non déglu ma non may ma la on est en train de faire. l'audit euh, la gestion de ne. am ngeen ci ay tontu. nañu auditer ku sàcc nañ ko jàpp ku luubal nañ ko tëj waaye loolu du tere ñu continuer def suñu politique il faut pas oublier que les corps de contrôle rapport yi. ay rapport yu ñu def la suu ñun. of nag ñun ñoo ko créé ah déglu ma et qu'on n'a pas publié. non déglu ma non non non déglu ma non attends oui ma su fekkoon ne. <laughs> non attends su fekkoon ne xa état continuité la su fekkoon ne par exemple ñun bëgguñu lépp leer mais du am ay rapport yoo xamante ni dañ koy def sous notre magistère. je ne pense pas waa déglu ma non non non non attends que bu Amadou Ba gagné woon euh, rapport yi tey dina génn. Oh, du question Amadou Ba ak keneen xam nga état du ci nit état continuité la ak ku mënti doon ci àdduna les rapports là sont là ont été faits sous notre magistère c'est le président Macky Sall avec son gouvernement et son régime qui a créé ces corps de contrôle là yenn yi renforcer yenn yi pour que ñu def ay rapports. mais rapports yi aujourd'hui non déggoo li ma la wax déggoo mais parce que. après loolu lañ koy publier et c'est ce qu'on est en train de faire on applaudit et je pense que comme ni ma la ko waxee. képp koo xam ne qui date xamante ni bu fekkee ne 60 1960 la sax ku def naka sunu noonu mais na yoon def liggéeyam loolu rek la ñuy laaj amul leneen loo xamante ni ñu ngi koy. parce que le